asalaamaaleykum man la Pathé Sylla le président école de moo bon man moom dama ñëwoon tey sax pour représenter Fall production bu Kolda daaw dafa ñëw CNG bëgg a dagg licence am ñu ni ko un million euh, euh, deux cent ngay dagg mu parce que dafa euh, délai yi dafa passé parce que licence bi trois cent mille ngay njëkk a daggee après day day day doublé par rapport ak temps bi bu ñu dem waxaat mu waxtaan ba ñu defal ko ko six cent mille mu dagg licence six cent mille te ñu woo promoteurs yi nekk fii dakaar yëpp ak promoteur Sénégal gis naa fi Sidi Diakhaté réunion bi commencé woon na déroulé ba ci kanam après nit moo jël parole euh, gis ni salle bi mi ngi nit ñaa ngi ñëw mu xam naa ne peut-être loolu dérangé ko man bi ma jëlee parole en tant que euh, bi ma bi ma présenté en tant que représentant Fallou production bu Kolda dañ ñoom dañ ñoom ñëpp di reetaan quoi. mel ni mel ni Kolda ñoom bokkuñu Sénégal quoi mais CNG la daggee licence daggul licence CRG de CNG la daggee en tout cas man moom moo taxoon ma ñëw fii. te 600000 la daggee ñi nekk ci biir yëpp 300000 lañ dagg te jotul tëgg benn combat fi saloon na ay combat am ba pare léegi dafay ñàkk quoi parce que Kolda la dëkk. Sidi Diakhaté mi nga ko doon kaas léegi euh, dafa wax li ma waroon a wax moo tax ma toog di déglu en tout cas damay ñëw ci beneen casse-tête représentant école de lutte yi nekk Guédiawaye ak écurie yi suñu mbëri ndaw yi jël avance yëpp nous sommes des impactés. gis nga Mbaye Tine numéro 2. dafa war a bëre ak ak Jara 2 le 12 avril bi ñu jox ko avance am mu jeex. te te te te te dégg naa joxaat nañ promoteur bi xaalis ba pare war nañ leen joxaat Youssou Ndour bu Père Balla et tant d'autres Gakou 2 fils de Balla bu école de Balla Gaye boo yooyu yëpp en tout cas man ñi ngi sama ginnaaw ñoom nee du ñu bëre ñoom nee nañ du ñu bëre te suñu mbëri ndaw yi jëloon ay avance yëpp du ñu bëre te ñun en tant que école de lutte de Fadam ñun du ñu affilié CNG pour l'instant dañu téye suñu affiliation pour l'instant affilié guñu ñu ngi déglu nag ñun dañu nekk ci benn dañu dañu tënku ci benn kuréel bu ñu woowee AREELS ñoom la ñuy déglu suñ jëlu seen responsabilité ñun dañuy dem ak suñu bopp. en tout cas booy nekk géejuwaay yëpp man sama ginnaaw lañu topp nee naan ma buñ lañ joxaatul avance du ñu bëre bu ñu génneewul xaalis bi jox leen ko ñoom booy parce que c'est c'est les c'est les plus impactés promoteurs yi ngi si yëpp ay 4x4 fi gaare yor seen business di job seen job mbër yi am na ci boo xam ne bàyyi nañ bàyyi nañ seen métier ndax mbëre c'est des professionnels dañuy fay saal di dem fajar gi dun di sonn di di fay assurance di fay lépp école din moo fanam daaw am na trente trente licenciés boo xoolee doo ko gis si école yu bari joso ngi nii dóor dóoraat affilié gul Bac Seras affilié gul euh, Yoff affilié gul te te man maa ngi leen di woo si sama ginnaaw ñu bañ a affilié parce que euh, ñun soxlawuñu ay nekk di siège CNG pour di bëgg a tëj suñu gémmiñ quoi lii nii fond Covid bi génn nii mbër yi dañ ci war a jël seen wàll école de lutte war ci jël seen wàll ñun daan subvention la ñu def lépp